la bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ñuy topp ci Facebook bi sëñ baay Talla Sylla ñu ngi koy ziar bu baax a baax ki nga xamante ne ne moom mooy euh, Sëriñ Moutala euh, Guèye ñu ngi koy jaajëfal mi ngi ànd ak ñun Serigne Modou Ndiaye ba tey Baara Mbaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax ndongal Serigne Sam ziar bu baax a baax Serigne Modou Sylla Ndayane Awa la moo ngi ànd ak ñun comme niñ leen ko waxee woon nag xam ngeen ne ajuma bu nekk baaxoo nañ di am ay invité euh, di leen dalal ci li nga xam ne moom mooy plateau bi tey nag dañuy daal di rek dalal ki nga xam ne moom mooy monsieur Sy euh, di euh, directeur bu Bichri Technologie xam naa rek ñu fas yéene waxtaanee concept i campagne mhm. ci noonu rek laa lay nuyoo bu baax a baax di la mhm. wax nga dal ak jàmm ci plateau bi mhm. bàyyi la rek nga nuyoo ak téléspectateurs yi waaw soxna Astou maa ngi lay nuyu di la ziar ci àjjuma ji. Euh, sëñ Mame Thierno maa ngi lay nuyu di la ziar ci àjjuma ji di rafetlu seen émission plateau di rafetlu aussi invité invitation bi ngeen ñu invité. macha allah kontaan nañ bu baax a baax euh, pour dalal la ci plateau bi macha allah euh, comme niñ leen ko présenté rek mu nekk li ki nga xam ne moom mooy directeur bu Bichri Technologie xam naa nag Bichri Technologie téléspectateurs yi tàmbale nañ koy miin ci seen i nopp xam naa rek balaa ñuy dugg nag ci li nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg waxtaan bi di waxtaan ci concept e-campagne. damay bàyyi rek nga daal di def benn briefing bu ndaw ndaw ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, Bichri technologie lan mooy Bichri technologie. waaw Bichri soxna Asto Bichri technologies benn compagnie euh, bu nekk ci nouvelle technologie la boo xam ni dafay def entre autres euh, live streaming ça veut dire que dafay mën di couvrir ay événements di ko jàllale en direct. sur internet et sur les réseaux sociaux boobu bokk na ci lu ñuy def ah, Bichri Technologies aussi bokk na ci li muy def dafay def ay développement des applications mobiles Bichri Technologies li muy def aussi bokk na ci ci mise à disposition des serveurs ah, ñëpp xam nañ ni serveur léegi daanaka lu am solo la ci euh, données yi ñu nekk nii Bichri Technologies aussi dina def ay création de site web Euh, Bichri Technologie enfin dina def ay euh, développement et création de plateforme numériques pour le paiement en ligne ma jox la benn exemple tey jii yow soo nekkee Sénégal ngay jaay dara Bichri Technologie mën na la defaral benn plateforme boo xam ni ka nekk Amérique wala ka nekk Europe mën naa jënd euh, say marchandises. jaarale paiement bi ci voie électronique maanaam comme yi ngeen di def ci transfert d' argent mobile money donc plateforme yooyu ñuy defee e-commerce. Mm-hmm. waaw bi ci technologie dafay defar ci plateforme yooyu tamit quoi. donc xaw na bëri tuuti ci ay euh, activités yu ñu nekk yu ñuy mm-hmm. def ko mais principalement luñ ko gën a xamee ci lu mu gën a déployer ci fan yi mm-hmm. moom mooy euh, live streaming bi. mooy ce qu'on appelle e-event. waaw les e-events e-events mooy ah, sunu réew yi généralement bu xew-xew mu mësaan am uh-huh. ku teew rek bokk nga ci xew-xew bi uh-huh. ñun nag bi ci technologie dañuy ñëw joxe nit ki possibilité uh-huh. même boo teewul sax mën ngaa bokk ci mbir mi parce que mën nga koo seetaan non seulement da nga koy mën a seetaan mais da ngay mën a am possibilité sax interagir maanaam di mën a chatcher di mën a yónnee say vocal comme sax mu mel ni yow teewuloo mais teewul tamit yaa nga fa quoi yaa ngi koy mën a suivre. macha allah mm-hmm. euh, mais sa biir wax dégg naa nga wax e-events. Mm-hmm. Euh, d'après bi ngeen tàmbalee liggéey bi nga xam ne moom mooy euh, Bichri technologie ba tey maanaam bi ngeen ubbee entreprise boobu. Mm-hmm. ndax e-events yooyu am na yu ngeen ci jot a def. tout à fait tout à fait ñu ñu mois de novembre fin novembre le 16 novembre. Euh, dans le 29 novembre ba 16 décembre Euh, ci Technologies International nekkoon na en partenariat avec le CICES. mooy foiru Dakar donc ñu ñoo réalisé woon ce qu'on appelle e-foire FIDAK deux mille dix euh, huit. donc lan moo doon moo lan moo doon solo si mooy fu waay nekkoon ci période boobu ci àdduna daa mën a xëy à partir de dix heures ba vingt heures ci guddi daa mën a seetaan foire bi. aussi bien inside comme outside sa veut lii xew ci biir foire bi daa ko mën a seetaan mais la daan xew aussi ci biti foire bi ci kaw pont beeg ambiance bi sécurité bi daa ko mën a seetaan bi ñu jógee ci loolu mhm. ñu amaat beneen partenariat ak wax mhm. mooy West African College of Surgeons mooy le collège ouest africain euh, des chirurgiens mu doon mbootaay boo xam ni dafa dajale Afrique de l'Ouest soowu jant bi yëpp euh, docteur chirurgien yëpp ñu amoon seen benn congrès international bu ñu doon def fii Dakar boobu euh, aussi ñu ñoo ko couvrir mi ngi amoon euh, King Fahd Palace donc suñu particularité ci bu ñuy def i events mooy suñ la couvriree mu jàll à la fois sur YouTube mm-hmm. sur Facebook et sur Twitter mais dañuy développer benn application mm-hmm. bu jëm ci événement boobu nga xam ni lépp lu ñu jotoon a produire ci mm-hmm. contexte boobu daa ko dugal léegi ci benn application comme ça yow application bi ngay télécharger rek mhm. dara du la raw ci événement bi ñuy def nii macha allah am na solo lool ci réalisation yi nga xam ne jot na ko wax muy ivoire ak iwax euh, mhm. euh, boo xamante ne nii rek jot nañ ko def euh, bi nga xamante ne tàmbale nañoo rek liggéey mhm. maanaam ubbi nañ li nga xamante ne nii rek moom mooy Bichri Technologies sëñ Mame Thierno xam naa balaa ñooy dugg ci concept e campagne ma bàyyi la rek ak monsieur si bu bëgg laaj ay question yoo xamante ne nii rek xëy na soxla nga ci ay leeral. di rafetlu euh, li nga xam ni leeral na mhm. ndax loolu ay innovation la am yoom solo. Mhm. te média ngir mu jëm ca kanam faaw muy am ay innovation mhm. yoo xam ne dina gën ubbi liggéey bi gën ko yaatal. te mënul nekk it ci benn ci benn ci benn ci benn domaine. faaw rek ñu ubbi yeneen bunt. yoo xam ne ngir ñëpp mën cee tàbbi la. Euh, ci li li li ñu jëm nii rek. Mm-hmm. laa laa ko bëgg a laaj ngir mu mm-hmm. ñëw ci gën ko leeral. Mm-hmm. te yaakaar naa lu am solo la ci jongante yi ñu jëm. mu am loo xam ni dinañu ko beral ay euh, xibaar jëm ci wàll googu. te mooy wàllu campagne. campagne bi. bismillah xam naa ci concept yi euh, campagne bi rek. waaw lañ bëgg nga gën ñu ci leeral. waaw tout à fait ça dafay dugg rek ci logique comme li ma doon waxee i event xam nga campagne électorale bi. Euh, Bichri technologie International dafa développé benn concept bu tudd e-campagne mhm. présidentielle 2019 bu fekkee sax régie bi mën nañu may déjà image bi mhm. mooy xam nga euh, mhm. candidat yi dañuy dem defi campagne ci espace national bi donc tey da ngay gis kii jaar région bi kii jaar région bi kii jaar région bi lan nañ xamoon mooy su ngoon jotee yow il faut nga xaar ba vingt heures jot wala vingt heures trente nga seetaan ci RTS ñu wan la ci benn extrait bu njëkk ba cinq minutes la woon ren il paraît que sept minutes la donc yow campagne meeting bi gars yi demoon defi nekk fa pendant cinq heures de temps yow li nga ciy am comme image weesuwul juróomi minutes yu lay RTS di dem léegi ñun concept boobu nañuy inversé mhm. ça veut que tey jii campagne bi ñun candidat yi bi ci technologies danañ leen topp couvrir leen seen campagne wane ko en direct sur internet YouTube Facebook et Twitter mhm. ça veut dire que léegi yow campagne bi dafay nekk benn affaire bu instantanée yow su fekkee am nga possibilité ànd ak bi dem campagne bi mhm. tant mais su fekkee yow dañuy def campagne bi Tamba mhm. yow nga nekk Saint-Louis bëgg ko seetaan Bichri technologie internationale dina la jox possibilité à travers live streaming yi muy def di filmer campagne bi di ko wane ci YouTube di ko wane ci Facebook di ko wane ci Twitter léegi ba nit ñi sax di mën a interagir donc soxlaatuñu très bien lépp en direct lay nekk léegi mm-hmm. soxlaatuñu di xaar ba jant so ba ngoon jot pour quatre heures de temps d' événement ñu wàññi ci rek cinq minutes quoi mm-hmm. donc nit ñi dara du leen ci raw mm-hmm. ci kii bi ci campagne bi ñu def loolu mooy concept e campagne Euh, boo xamante ne nii rek xëy na euh, élection yi ñu dëgmal rek moom moo ko tax a jóg ngir campagne yi nga xamante ne nii xëy na ñi samp seen ndënd euh, bëgg nañ cee rek daal di tàmbale mu mel ni rek ci fan yu néew yi ñu ko war a tàmbale waaye tey ndax loolu dina yomb en terme de logistique maanaam bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom moo ko war a couvrir mhm. parce que lu mel ne campagne nga war a mhm. maanaam gunge benn kandidaa mhm. yaakaar naa ne liggéey la ci wàllu li nga xamante ne ni maanaam yan matuwaay ngeen jël. ci mhm. mën a couvrir euh, événement boobu voilà pour mën a couvrir événement yooyu dafa am ñaari dimension yu ñu développé benn dimension. mu tudd soft ak benn dimension bu tudd hard mooy logistique maintenant dimension bu tudd soft bi moom mooy site bi ci boppam d'ailleurs bu ma ko seen euh, régis réalisateur permettrait bu ñu demee ci site bi ma expliquer ko site bi euh, nan mooy fonctionnalité ak euh, nan nañ ciy mën a seetaanee en direct campagne yi mhm. léegi soo ñëwee ci site bi nii mu nekk campagne 2019 voilà moo nekk nii www point campagne 2019 d'accord léegi su ñëwee ci page de garde bi ñëwal ci page de garde bi fii ñu bind à la rencontre de vos candidats ñu ñu ñu def benn euh, li anglais yi tuddee tour yi benn cas pratique nga xam ni boobu c'est valable pour tous les candidats gis nga soo ñëwee ci interface d'accueil bi mhm. daa am les cinq candidats yuy dem jongante ji léegi ñu jël par exemple kaaw Macky Sall mhm. soo jëlee kaaw Macky Sall dañ la présenter fii son bilan mhm. parce que effectivement moom mooy moo yor mooy président actuel donc moom amul programme donc bilan ci bilan am nañ koy attee par contre ñi nga xam ne jotaguñu nekk président mhm. ñoom amuñu bilan parce que dawaluñu donc ñoom seen programme ak seen vision ci nañ leen di mën a attee léegi soo ñëwee bu kaaw Macky da dangay gis ñu bind fii benn onglet son bilan mhm. yow soo cliquer ci ongle bi automatiquement seen régisseur bu cliquer ci onglet bi mhm. dafa lay indil yenn ci ay pàcc yi nga xam ni Euh, président Macky Sall jot na ko réaliser ci magistère am nekkul ni lépp la nag c'est pas c'est pas très exhaustif mhm. mais daa mën a euh, dérouler régie bi bu fekkee mën na dérouler ñuy wàcc tuuti mhm. donc di nga gis un peu euh, quelques réalisation yu mu yu mu mën a jox mhm. et puis c'est un peu dans le but de donner des informations pratiques ci électeur bi nga xam ni suba dafa war a dem voter léegi soo dellu siwaatee ci interface d'accueil bi Euh, ci juste ci suufu son bilan euh, daa am euh, benn onglet bu ñuy bind iti itinéraire mhm. léegi itinéraire bi mooy candidat bi mhm. yan dëkk ak yan gox ak yan goxaat la fas yéene dem defi campagne léegi nag yow soo ñëwee boo ko cliquer fii da nga koy am ñun bien mu ngi ci programme bi donc noonu mu demee ci président Macky Sall mhm. noonu lay demee ci ci yeneen candidat yëpp léegi soo wàccee tuuti ci suuf bi ñëwaatal Euh, ci interface bi bu ñëwal ci interface bi ma woon la euh, présentation site bi donc fii mooy soft bi léegi ñëwaat ci euh, ci interface bi léegi boo ñu wàccee ba ci suuf foofu nañu nar a defee live streaming bi voilà donc fii nañ war a defee mhm. lu tuddee live streaming bi donc boo xoolee am na ay case am na ay case yu bëri mhm. yu ñu yu ñu def ki nekk régie bu ñu mënee may interface site bi waaw image bi comme ça ñu mën ko wane. Mhm. léegi yow soo ñëwee ba ci suuf da ngay gis fu ñu bind Sénégal voilà mhm. waaw boo déroulé nga wàcca euh, dérouleel nga wàcca d'accord léegi da ngay gis fu ñu bind Sénégal élection 2019. Mhm. léegi onglé yi ci suuf nag voilà donc am na ci benn onglet benn case bu tudd coulisse de la campagne. donc vidéo yi nga xam ni. Euh, mën na am ay information njeexital ça veut que président bi am na ñu faral moom ñeneen ñi am na ñeneen ñu ñu faral donc activité le jeu des acteurs mm-hmm. video yooyu foofu lay ñëw boo ñëwee arrêt sur image képp ku xam ni euh, ku xam campagne électorale xam ne aussi moment de festif la mm-hmm. des fois nga am ay image yoo xam ne dina la mën a réfléchir loo dina la mën a xalaat loo wala sax dina la mën a reeloo foofu lay ñëw mm-hmm. déclaration du jour mooy candidat mm-hmm. chaque jour mooy euh, promesse yi ñuy wax wala dinañ tànn daal tey ci candidat kan moo ci def benn déclaration boo xam ni askan bi war na koo mën a euh, jariñoo mais campagne bi rek du rek candidats yi mais aussi militants yi war a voté la ñoom nañu réserver parti bi mhm. nga xam ne ñoom tamit bu ñu amee seen déclaration ñu mën cee wax beneen partie bi bu déroulé tuuti ci suuf mhm. moom mooy écho de la diaspora léegi xam nga campagne bi nekkul rek seulement waa Sénégal yu nekk ci biir Sénégal mais sénégalais yi nekk euh, bitim réew tamit ci ñu bokk quoi donc rubrique bi mooy jël meeting yi rencontre yi nga xam ni suñu mbokk diaspora yi ñu ngi koy def ñoom seen i euh, antenne fii lay ñëw mhm. ak euh, chronique bi donc voilà globalement mhm. loolu mooy soft bi léegi nag mu des ci xaat bi li nga wax ni parce que boo bëggee dem defi couverture diffusion dafa laaj logistique effectivement comme ni nga ko waxee daa laaj ay caméra daa laaj ay oto daa laaj ay homme comprendre nga daa laaj ay connexion internet et cetera et cetera donc si bien que ñi ngi organiser wu ñi ngi déjà di nuye ay partenariat je rappelle ko lu ci bëri ci kii bi sur financement fonds propre lay nekk mais comme ñu mënuñu couvrir lépp budget yi mm-hmm. on est en de travailler à ce que candidats yi ci seen bopp mm-hmm. ñu proposer leen concept bi pour voir ñoom nan lañuy participer ci seen propre couverture ak seen propre diffusion li ci des ñu ñoo koy gàddu en tant que société d'innovation technologique parce que comme ñun duñu RTS amuñu ay moyens de l'État amuñu subvention uh-huh. daanaka duñu mën a def lépp lenn rek nañuy mën a def uh-huh. maintenant on est tey sax war naa rencontrer ak équipe bu Madické Niang démb rencontrer naa ak équipe bu coalition Macky uh-huh. donc ñi ngi rencontrer ay gars waaw waaw waaw xam naa ni dinañu confirmer parce que concept bi dafa xaw bees tuuti ci ñoom que gars yi dañu xaw a nekk ci format classique bi ñu nekkoon dem RTS mhm. donc maa ngi leen di bàyyi tuuti le temps sauf ko ma leen di rappeler rek que comme campagne bi dimanche lay ubbi il va falloir ñoom ñu jël très vite des des ah, parce que y a une organisation logistique mm-hmm. donc ku ci d'accord rek ci candidat bi mm-hmm. ñun ñu indi ay moyens moom mu indi ay moyens pour ñun suñu finalité mooy suba électeur bi war a dugg ci bañ gàtte bi mm-hmm. mu am tous les éléments d'analyse pour mën a def son propre choix am na solo lool ci leeral yi ñu ngi koy jaajëfal di fàttali rek ñu ngi dalal euh, ki nga xam ne moom mooy euh, te i campagne sëñ Mame Thierno ma bàyyiwaat la ak DG bu fekkee rek am na question yoo ko bëgg a posé. waaw li ma bëgg a wax rek mooy ñëw tuuti ci li mu doon wax maanaam lu am solo la mooy eh, li ñu lu ñu xamoon. Mm-hmm. mooy ñu bari sax li muy wax nii juróomi minutes yi nga xam ne dañ ko daan maye te ren ñu def ko. ñu kaas ko ba ñu def ko sept minutes. Mm-hmm. ñu bari sax dawuñu ko teewlu. Mm-hmm. lu nit ki dafay am temps. ci waxtu yi nga xamee ni moom la candidat yi di jàll ci ci ci RTS mën ko teewlu xëy na ren sax dina gën a yomb ndax candidat yi néew nañu waaye lii dafa dafa doon lu am solo parce que nit ñi internet bi moom mooy li nga xam ne moom moo leen gën a jugu mooy li gën a jàppandi ñoom ndax yenn ku ne yaa ngi sa téléphone à chaque instant mën nga xool maanaam campagne bi fan la toll candidat yi fan lañu nekk tey ci biir kii bi gis naa lu mu expliqué léegi moom mooy nga dugg xool programme candidat bi nga xam moom ngay moom ngay ji mhm. parce que nga xam tamit seen unitaire mhm. maanaam yow mhm. ba lan moo la ci intéressé sa dëkk bi nga dëkk kañ lañ fa war a ñëw candidat candidat bi nga bi nga bi xam ne moom nga bëgg a àndal dëkk bi nga xamee ni moom nga dëkk yow wala sa gox kañ la fa war a ñëw pour nga xam ko mën nga ko jaare ci ci campagne bi mooy muy mooy innovation bu am solo boo xam defe naa ne lu dëppoo ak jamono la. Mhm. te lu ñu war a mën a accepter la. xay na mhm. ñi nga xamee ni ñoom ñooy. candidat man nañ ko bañ a xamagul. Mhm. mën nañ bañ a xamagul waaye wala gars yi nga xamee ni ñoom ñoo yor seen communication yi. mën nañ bañ a xam impact bi mu am. waaye euh, suñ ko demee ba comprendre ko. surtout lim leen mën a jural ci diaspora bi. jàpp naa ni dinañ ko accepter. parce que ñu bare bari. xamaguñu. Mm-hmm. xamaguñu surtout ñi nga xamee ni. Mm-hmm. ay programme lañ am. muy muy ñeenti candidats yi. Mm-hmm. ñu defe naa ni ñoom la war a gën a mën a. amal solo waaye nag président sortant bi tamit. war na ko amal solo ndax bilan ngir ñu bëree bari man ko gis. ngir ñu bëree bari man ci def seen i jàngat. maanaam dina am. possibilité la ndax man gis naa ci ñoom ñoo xam. gisoon naa ci kenn ci ñoom koo xam ni ku liggéeyal président bi la defoon na ci xaalis bu bëree bëri ngir. wasaare bilan Macky Sall mhm. occasion la occasion la mën a wasaare mhm. bilan li mhm. nga xamee ne moom la def kon jàpp naa ni lu am solo la loo xam ni jàpp naa ni amal na solo candidat yëpp waaye a def a am ñaar a posé ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ne dañu confirmer pour nga defal defal leen nga xam ne moom mooy seen e-events mhm. comme ni nga ko waxee mhm. euh, kiyal leen seen euh, mhm. campagne yi euh, en direct et tout loolu naka nga koy mën a maanaam ndax loolu dina mën a jàppandi waaw waaw dina mën a jàppandi sa nga koy mën a defandoowee en même temps waaw c'est que dañuy déployer ay équipe ça veut dire que tey jii candidat bi pour ñu mën ko defal direct on a besoin de six personnes équipe bi six personnes lay nekk entre caméraman bi réalisateur bi ak ñi nekk ci régie bi ah, ak ñiy gérer euh, euh, ordinateur yi montage yi ñooñu six équipe nañ donc ce qui fait que candidat bu ñu ciy signé gu convention boobu ñu dañuy wut six personnes ak seen oto ñoom ñoo lay boole di la couverture te li ci gën a euh, li ci gën am solo sax mooy du rek meeting bi na ñuy couvrir dañu nekk direct tey ji yow soo déparé Thiès mhm. Dakar nga ni damay jubali Tamba depuis Dakar ba keroog ngay am Tamba dañ koy def live streaming. suñ demee bay meeting bi jot di def ko live streaming léegi avantage bi muy indi mooy comme lii maam Thierno wax moom lay dëggal gis nga électorat Sénégal mhm. euh, ndaw yi ñoo ci ëpp que mag ñi. c'est-à-dire on a un électorat très jeunes mhm. te électorat boobu dafa très connecté ci technologie yi ci affaire yu kii donc yow su fekkee am nga benn discours pour candidat yi. Mhm. yoo xam ne bëgg nañ ko jàllale auprès de cible boobu électorat boobu jeune. xale yooyu du RTS ngeen baal ma ci kii bi du ay journaux yooyu nga leen di koje mais tamit fi nga leen di gën a mën a kojee am leen mooy ci interface numérique parce que ñoom euh, c'est les native euh, digital ci kaw comme comme ni ñu koy waxtee beneen aspect bi mooy avantage bi indi mooy euh, xam nga télé dafa bëri contrainte mhm. tey jii bu ñu lay diffuser sa meeting télé dañ naan 9h30 la meeting bi di jàll télé yow 9h30 soo fa toogul teetaan télé bi dootoo ko seetaanati parce que am fichier bi léegi avantage bi mooy ressource open resource la saa veut dire que vidéo bi day nekk ci YouTube donc yow du la yàqal dara sa programme loo doon def mën nga ko dem defi bu ngoon jotee boo ñëwee ba sangu ba teg sa ataaya di nga mën a xoolaat campagne bi dem surtout surtout que euh, ay volume de production bi daa mën a dem ba ay quatre heures de direct cinq heures de direct et cetera donc du point de vue logistique ak du point de vue euh, du personnel loolu défi la bu ñu relever parce que def nañ ko foire ah où on était une équipe de presque euh, trente et quelques personnes donc euh, candidat bu ne ñoom cinq nañu ku nekk boo ko yóbbu six éléments day nekk benn équipe globale de trente cinq personnes ñu topp ko quoi donc avantage live bi du rek ñëw wane meeting bi mais itinéraire bi daa bi di def ak waxtaan yi muy def ci suuf donc loolu lépp dara du leen ci ump te suñu paree daa ko mën a def ci application mhm. comme ça mu mën a gën a fasaare mhm. donc globalement bi ci technologie mhm. désormais taxaw na fii ci Sénégal pour que événement bu mën a taxaw mu indi ci son euh, benn apport technologique d'ailleurs keroog maa ngi taaj tooñ sama gars yi sax ne màggal gi moom il faut ñu def benn ii màggal ko <laughs> ba gars di ma laaj ni ñuy defee i màggal ma ne ko dinaa dinaa sàkku benn audience ci sëñ Bass Abdou Khadre comme ça boole ko benn équipe boo xam ni maanaam màggal gi bu ñu nee streaming boole ko ak équipe moom lu mu bëgg rek mhm. maanaam dara du leen ci raw lu bokk te couverture télé yi parce que soo xoolee télé yi ni ñu koy defee mooy dañuy def ay émission mhm. sax dañuy def seen programme ci biir programme ñu dugal màggal bi mhm. léegi ne fi nga mën a suivre màggal bi yëpp en temps direct xëy di ko suivre 24 sur 24 pendant 72 heures loolu peut concept te i màggal mën na ko mën na ko joxe <laughs> am na solo am na solo xam a seetaan ci Bichri www point bichri point tech moom mooy site officiel lu Bichri technologie mhm. mais aussi daa ko mën a seetaan fii ci situ dédié e euh, ah, campagne bi muy www point campagne 2019 point com mhm. mais aussi daa ko mën a seetaan euh, Facebook daa ko mën a seetaan aussi ci Twitter aussi bien pour Twitter u campagne 2019 que Twitter u euh, Bichri Tech ma ne leneen li ma ciy bëgg a yokk mooy chaque ngoon daañu xool image yi gën ci image yi ñu créer benn journal de la campagne pour Bichri TV parce que dañ ciy dañ ciy dem ak partenariat ak Bichri TV donc euh, Bichri campagne 2019 foofu live nañu nekk direct uh-huh. mais su jant sowee danañ jël image yi ci gën a euh, méngoog ligne éditoriale am uh-huh. comme ça pour mën a permettre suñu partenaire yi di Bichri TV ñëw tamit ñuy mën a créer seen journal de la campagne uh-huh. à l'instar ni ko RTS ak yeneen yeneen ñi di di defee la loon di DG bu Bichri technologie doon waxtaanee li nga xam ne moom mooy concept e-campagne